mbokk yi dal leen ak jàmm Ousmane Sonko niki démb nag jot naa def révélation yu jéggi dayoo jëmee ci kaaraangeem ak lañ ko jéemee faagaagalee ba su fukki fan ak juróom benn ci weeru mars ba muy dem wuy ci kanamu yoon le regard Sonko a faagaagal jaaree jot naa wax ne du kenn kudul force de défense et de sécurité yi maanaam takk yi ci réew mi ñoom la Ousmane Sonko juuj baaraamu tuuma ñoo ko doon jéem a bés ba muy dem wuy yoon ci digganteem ak Mame Ndiaye ci biir yéene kaay bi moom jot na caa xamle ne yëreem ya mu yóbboon ca bitim réew nag résultat yi jot na ko te lañ ko wax mooy poson lañ la sotti poson googilee Ousmane Sonko tudd moo nekk bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo ko doon jéem a ndax jàpp ne ne tentative d'assassinat lañ doon jéem a def ci nitam ndax loolu la ñuy wax ak liquide dañu sotti woon ko mu wex xàtt ca kanamam indi leen ay jafe-jafe ci wàllum nooy biir ba di metti ba ca l'hôpital newoon ak moom ca terrain ba indiloon ko géita ngaas bëggoon ko yóbbu tribunal par force 24 heures yéen a kaay xëy dëggal xibaar bi ànd caag le témoin ñoom ñëpp xëy ñoo wax ne Ousmane Sonko si wala ni ko démb ne fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars ba muy dem tribunal ca procès mi diggante ak Mame Mbaye Niang nag liquide boobu ñu sotti woon ko ab poison la bu ko doon jéem a faat te lii leen nag résultat yi mu sàkk woon ci ay analyse jëloon yéreem yóbbu ko ci biti réew ñoo ko ko daanee xamal Le Quotidien yéen a kaay taxaw ndi foofu ne jàpp naan ndax Ousmane Sonko jamono ji nekkul di testé wàllum justice ndax moom moom jot naa xamle ne dana yóbbu yëf yi ci kanamu yoon te bépp preuve bi nga xamante ne amee na ko dana ko yóbbu ngir ñu xam kan moo ko doon jéem a boom bés boobilee ndax moom Ousmane Sonko di maire bu Ziguinchor jàpp na ni du kenn ku dul force de défense et de sécurité yi maanaam takk der yi ci réew mi ñoom ñoo ko doon jéem boom te fañ ko jaaree nag di ab poson moom am na ca firnde ndax yëréem yi ginnaaw analyse ca def loolu lañ ko daal di wax le mandat yéene kay xëy ne Ousmane Sonko niki démb nag la daal di def ab post ci page Facebook am joxe boobu woowulee ba noppi nag wax sénégalais na fii ak ay fan yu néew daan ci indi leeral yu gën a xóot ci mbir moomu li ñàkk leer ci àndu président Macky Sall ak Idrissa Seck moo nekk ci Walf Quotidien mu ñuy xëy di defal bilan ci seen diggante ñoom ñaar ñetti yi nga xamante jot nañ ko caa ànd di mburoog soow élection législative ak élection locale yi nga xamante ñoom ñaar ak seen coalition boobulee dañ caa nërmeelu la ngay bay de Seck doon def ca conseil parrainage xëy defub jàngat ci ànd bi nga xamante ne moom la Idrissa Seck daa di am ak président de la république yéenekaay bi xëy ñoo yebbi lépp li nga xamante ne moo baax ak bon ci seen ànd woowilee li baax ak li bon ci seen ànd bi L'Évidence yéenekaay jàpp na ni moo indi génnub Marietu Dieng ca groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar moom député réew mist bi ànd ak Idrissa Seck nag daa génn coalition boobilee li la nag tax na ba yéenekaay bi xëy di ko samp laaj ndax moom Marietu Dieng poste député ba mu amee ginnaaw ba mu sole woon te ñuy Benno Bokk Yaakaar boo moyut moom la président bu assemblée nationale di Amadou Mame Diop bëgg a joxe ni ki àjjuma ji ndax ñoom ginnaaw ba ñu toggee ñetti weer yi nga xamante ne liggéeyuñu seen bureau ba daal dinañ koy wol ni ki àjjuma ji bés bi la jour yéene kay xëy wax naan looloo tax jamono ji nag mën nañ jàpp assemblée nationale daana nekkaat à jour ndax ginnaaw ba ñu toggee ñetti weer yi nga xamante ñoo nga doon yor kopparu sénégalais yi ku ci nekk toog waaye itam Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xamante ne boo moyut daana fa jógee ndax moom niki démb moom la ñu tabb mu nekk directeur bu yees bu FONSIS xibaar boobule mu ngi ci Walf Quotidien ba léegi mu ñuy xëy di xamal naan Diouf Sarr ginnaaw ba mu yoree ministère de la santé ñu jëlee ko ca yóbbu ko ca assemblée nationale mu nekk vice président président Macky Sall nag na ko fa daal koy tabb mu nekk directeur général bu yees bu FONSIS critique yéene kaay jàpp ne Abdoulaye Diouf Sarr mi takkee ripp ci fond force Covid 19 yi nag wutal nañ président Macky Sall dafa rek daal di imposer ab dialogue digganteem ak waa opposition bi ndax loxo wi nga xamante ne na leen ko nee leen boo leen ko julut daana banque te su boobaa waxtaan dootuta mën a am waxtaan bi Pape Demba Diallo jot a sekk nag ak waa l'observateur di xamle lan moo tax président de la république jëlee ko ca Francis li tax ñu tabb fa Diouf Sarr léeg-léeg moom mi leen di Diallo jot na ca aatroog yéene bi keneen moom mi lee di Diop Decroix jot naa xam ne ne jamono ji ji ñu toll nag amul dara lu ñu soxla wudul waxtaan wu dëggu ngir Sénégal ba a tàbbi ci guuta te li leen nag ñëpp ñi nekk ci làngu politique bi war nañ koo bàyyi xel ba tax na seen kàddu yu ñaaw yi seen xeexoog beeg lépp la ñu war a teg ci suuf waxtaanee yëf yi ndax waxtaan rek moo mën a sax dëggu dëggu law ba indi jàmm ki jaamu narta daal nag mooy Babacar Touré nekk directeur de publication bu site d'information bii di Kéwoulo ndax l'évidence yéen kaay xam la ne ndax l'évidence yéen nee nañu ginnaaw dem bañ ko convoqué cette division des investigations criminelles di dig moom mi lee Touré génnu ca ndax ba mu fa jógee nag dañ ko daal di yóbbu mu dem noppalu ci cellule ya fa nekk ndax moom ilee dañ ko daal di placé garde à vue Les xëy ñoo wax naan Babacar Touré directeur de bu Kéwoulo nag nee na un déroulé incompréhensible de son audition ndax ginnaaw dem ba ko l'enquêteur du dig doon déglu nag moom la mu jot a xam ci dossier boobu loolu nga xamante ne amee nag ginnaaw plainte bu policier bi di Frédéric Napel lañ ko cay tuumal nag yéene bi jot naa xam le ne toll na ci juróom a démb dafa nangu ne moom moo ko wax lii la nag moo ko daggal biyeen nar ko yóbbu 100 ki nar a dem 100 jamono ji nag mooy docteur Sophie Gaye moom docteur Sophie Gaye nag libération yéeni kaay moo ngi xëy di xamle leneen nekkul woon liggéeyam lu dul nekk ci réseaux sociaux yi naan day consulter ak di bind kay médicament ñu ne fa déete waaye ñu ne moom dafa sancoon ak la boom di fa def lu ko saf ba niki démb la ko waa sûreté urbaine daal di teg loxo te a a a garab lu mu jot a xamle mooy ne ak formation ci wàllum faj la doon def ci ginnaaw ga nag àggaliwu ko waaye lii leen rek da ko musa neex moo taxit mu jàppee ko noonu rek di foowee bakkanu jàmbur yi Gris Bordeaux ak Ama Baldé ji jël làmb di ko foowee nag jamono ji seen combat taxaw na ndax niki tey lañ koy daal di régulariser ci CNG ndax promoteur bi jot naa xam ne ne juróom-ñeenti fan ci weeru silet gañ ko jàpp nekk na bis bu baax te ñoom ñaan ñi ji di mbaru Pikine ak mbaru Fass daañu ñu laale ci régularisation boobulee ci la promoteur daal di jaar xam ne ne beneen combat bi mu taxawal mooy diggante Gora Sock tamit ñoom ñaar ñii nag daan nañu sëgg bés boobu la ngir gën a mën a doll journée bi Sadio Mané mi yor doole équipe nationale bu Sénégal jamono ji stade yenekaay mu ngi xamle ne moom Cote ak Bouna Sarr ñuy fubal ca Bayern Munich ñoom ñooy ñaari fubalkat yi xëccoo titre champion ci club yi ñuy jongante mais da ngay seet lii rek Sénégal lu muy bëri fubalkat yépp ñaar Cote ci xëccoo titre champion man de xëccoo ma titre champion moo taxit fii laa jaaree tëj fi yenekaay tàggu leen